jàmm li ñuy ñaan Sénégal émission bi mooy dalal jàmm salaam eh, ya salaam alhamdulillahi wa sala abada ala allazi bihi lanal hud abada seydina muhammadin wa wa sahbihi zawi nawalil wali li ma leen doon wax loolu laay waxaat yéen waa Dakar instant yéen ñun ngeen am ñun it leen am ndax un plus un égal deux loolu leer na ko ne kon ñun la ak yéen tey nag ñu ngi fii ci Caaroy Azir ci kuréelu kan waa Wildaanu Sukóor yi ci njiitalu maam Thierno Mbacke imam ibnu Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni ibnu Serigne Ousmane Mbacke Noreyni ibnu maam Thierno Birahim Mbacke ibnu maam Mor Anta Sali maam Thierno Birahim mi nga xamante ni mooy rakk ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi sës ci moom rek te du ko rek tey ñëw fii ci diwaan bi ngir tàkkusaanu kennal borom Sukóor yi ak waa Wildaanu Sukóor yi mu ngi neex gis nañ ni yaa ngi def. plan di sant yàlla di gërëm yonent bi di kenn la ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye jaaree ko nag ci seen mbër mu mag ma muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jërëjëf borom Touba ci kanam ñu jokkoo ñoon waaw waaw. jërëjëf Serigne Touba dañuy sant ba léegi. waaw ñu ngi gis kilifa gaa ngi noonu taxaw muy maam Thierno Mbacke imam moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni kooku muy waxtaanal moom la ñuy woowe Joorin Maam Moor kuréel bi nga xamante ne moom la jiite muy daanu Sukóori Joorin jooju mooy kilifa gi waaw Serigne baa ngi noonu Serigne baa ngi noonu mu ngi noonu di dem ci mbokku taalibe yi macha allah Serigne baa ngi noonu di dem ci mbokku taalibe yi muy maam Thierno Mbacke imam bushia Cheikh modu karamba kenorini Noreyni ñu ngi ci Dakar instant muy neex di beuri jamm ci dal jamm ki ñu toogal moom la Isbula mom lañu woyé jorin Momar Gueye xamante nañ ko ci tour ngir momit ci liggéeyal Serigne Touba rek lay dox ni lañ ko waxé won sank li nga xamante ne la moom la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di liggéeyloo ki di leeram muy mam tierno borom daru sani mom mo nek ci mu mbolo bi jorin tey ngeen tok bam neex ngeen ngontu kennal borom sukori yi. bismillah inna wallahi yallah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngalaama Cheikh Ahmadoul Karam Mbacke Noreyni barke maam Thierno Mbacke diwaan borom Darou Sani imam waaw Ousmane Seck ñu ngi lay ziar bu baax jëwrin di la jox sa wàccuwaay waa di wax alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi ziar bu wér tey ñaanal maam Thierno Mbacke diwaan borom Darou Sani imam mi xamante ni ci ndigalu Cheikh Ahmadoul Karam Mbacke Noreyni képp si lay xëy si lay gontu. ndax kuréel bii ñuy wax Wildaane Chikori borom Chikori ci boppam moo ko jox ndigal mu tuddeeguñu ko yalla dogal nag mu jël ma def ma bàyyi faalu mbokk taalibe yi ñu may jiñ naan ma maay jëwriñu liggéey bi ñu ànd ko mbokk taalibe yi nekk ci réew mi ak bitim réew tay nag sëñ bi ci yëg yéegam ni mu amee woon yëg-yëgu rek maanaam defal Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni delloo njukkal ca Cissesse jamono yële ci ginnaaw te loolu noonu àdduna du ko fàtte. tey tamit fii ci Thiaroye Azur bii mu dëkk noonu la amee yëg-yëg bi ak yéene bi ñu def fi ngontu kennal Cheikh Ahmadul Kara Mbacke Noreyni jàmbaari Serigne Touba ji nga xamante ku nekk xam ne moom la al mashhour le grand général de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul le grand poète de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul maam Thierno Imaam nag nekk jëmm joo xamante ni dafa bëgg fépp fu Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni jaar di fa wane liggéeyub sëriñ Touba moom it mu jaar fa marqué fa empreinte ak liggéeyu Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni ndax ku nekk nag si nga toll rek ngay waxee man si sama tolluwaay bu gàtt man maam Mor dama jàpp ne Serigne Touba Khadim Rasoul récompense la boo xam ne yàlla sunu borom moo ko récompensé yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye dama jàppaat ne tamit Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yàllaa ko récompensé Serigne Touba waaw waaw noonu la demee maam Thierno Imaam nag loolu lay xeñtu moo waral saa sunu du jug ci di naf-naf. nu ñuy kennalee ak nu ñuy feeñalee œuvre Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu ànd ko kullu nag mbokk taalibe waa diwaanu Bamba fépp waaye nag particulièrement kuréelu wil daanu Chikour 나가 rabbil alamin sunu mbokk Dakar Instant ñu ngi leen di jaar di leen di leen safo Azir diwanu Ahmadou mu bunia buñ Ahmadou le poète de Bamba le général de Bamba gaynde Bamba muy Cheikh Ahmadou Kara Noreni. lenn ci njabootam toog di nduru def ko muy boroomam loolu xanaa leer na waa àddina gépp ñu gën ko xam ci maam Cerno Saani Imaam. waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billahi samil alim min charri cheytaani rajim laa hawla wala quwata illa billahi il ali al azim waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sëñ Ousmane ñu ngi lay siyaar bu baax di jox sa wàccuwaay di ziara mboolem kuy dégg sunu kàddu mbaa nga ñuy seetaan ak foo mën ne ci àdduna di la ñaanal jàmmi àdduna ak àllaaxira lu ci melni ni ñu dégg ci beyitu Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasouli mui muy sifatu sadiq murid bi ihtisan amna lool mom yeena ñukoy gëna léral baki lool boko don baxé aduna ak di len ko tojal nan len nga len koy baxé wa xam nga jërëjëf Ousmane laaj ba am solo nga laaj lool moy lan moy ak rek kan moy ab murid da nga bëgg ñu définir lako ndax serigne djowa moko léralal bopam ba kenn mënta indi wax ju yes bayyi waxam jooju ndax moy borom yoon إذا المريد لا يريد أبدا غير رضا الرحمن حيث خسدا نانا مريد موي كيغا خامني نغيرمال يالا رك موي تيم لودول نغيرمال يالا اموتي اموتي لولا سوخلا لوكاي ماي نغيرمال يالا دال تي لاي دوخ بو نغيرمال يالا دوني سييت نك ياكانا دوتال اي تياخان دوتال لنين لودول لودول لودول لاكاي ماي صفات صادق المريد نك ملوي مريد صادق لولو مريد بني وارغا كو خام وارغا تي boo ko amee war nga ko sant yàlla te fexe ba euh, fexe mu jëm kanam boo ko amee wudil war ngaa góorgóorlu ba ndax dafa am kuy wax dara sama benn rek bu wax lu am solo nee na murit bu ne da ngaa war a jël melo yi sifaatu saadixil murit ko muy sab seetu saa boo xëyee sa bopp xool melo noo def ak ñoom loo ci xool mu ne ci yow nga fexe ba gën koo sàmm loo ci xool ni wut ci yow nga fexe ba mu ne ci yow sëñ bi da koo tënk ne euh, sifaatu saadixil murit di bixtisaar arbaatu nazamtuha xaw faxtiraar nee na damay woy melo murit saadix mm-hmm. ci tënk waaw muy ñeent mhm. waaye li tax ma koy way itam ngir bañ ko woru mhm. woru mooy nga jàpp ne murit saadix nga te doonoo ko mhm. wala nga gis nit di ko woy murit saadix te fekk doonu ko jegew ko sax kon loolu lay bañ mu ngi avertir euh, nit ñi ci lu dikkagul mu ni asidru fi mahabbati cheikh abat bi njëkk mooy bëgg sa sëriñ ba jeex ci moom tàkk ñu misaal ko ni ni soxna si sëy ni muy mel ci borom ko nu ko raw ngay bëggee sa kilifa yow bëgg gi wërtam ab waaw bi man bi xob bi nasidu layla wa zahaban wa fiddatan waxee la sëñ Tuubaa daa bëggoon yéen saa sam ba tax na geneen bëgg safatu ci moom kon bëgg googu murit bu ne da ko war a jéem a def kilifaam asidqu fi mahabbati cheikh abad kon sumam tisaalu amri xeesu warat di gaaw ci ay ndigalam saa bu rotee xam nga mën nañ leen la deel gaaw ci ndigal rek waaye dañ la saa bu rotee dafa préciser pour nga gën a gaaw ci ndigal bañ koy yeexee ndax ni ndigal mën naa ñëw nga dengi dengi ba wiiri wiiri ba soxol seet nga soog a jëfe ndigal li kon sumam tisaalu amri xeesu warat deel gaaw ci ndigal bul teg esprit وترك وترك الاعتراض مطلقا ولو بباتن عليه فيما fi ma xat nga fexe ba buldi garal sa kilifa moy ñettel bi garal moy nga koy nga koy nga nan ah sëñ bi dal lim def ak ndax war nako ko defet sëñ bi dal lim wax wax deug sëñ bi dal waye ah di bëri loy xebet moy di garal sa kilifa lolu day ëpp def ci murit wa wa maahu salabul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari nga baña ciobari bañu bëgg dara li la señ bi bëggal waxoon naa la sànq ne la murid mooy ki xam ne ngërëmal yàlla la bëgg mhm. te ngërëmal yàlla lay bëgg ci sëriñ bi kon yoon bu ko sëriñ bi jaar la te na xelam dal ci woowu yoon mhm. te xam ne defaru àddina ak alaxiraam ci la nekk mhm. waaw donte yanuun maanaa cim xelam it na xam ne xëy na zaahir si la xam te xamul baatin te sëriñ bi xam baatin bi mhm. wante nag nit bu la dee wonoo yoon te yow xamoo fa nga jëm da nga koy nangoo bàyyi sa bopp mhm. fu mu la ne jàddal nga jàdd bu ne laa taxawal nga taxaw ndax mhm. loolee tax nga mën a yegg ci la nag boo dajeeg sëriñ bu moom lépp lu mu lay digal ci lu baax da cay ne euh, naa xam daal ndax sëriñ bi leeral na ko ci anam yu bëree bëri bëri yu bokkul waaw ku ci da teg da koo tijjee ni fa ku lu xasi sifaat minal muridina fa yaddu ko sixaat mhm. képp koo xam ne bëgg ngaa mel na mag ña meloon mhm. lañ amoon nga am ko nee na da fexe melo yi daje ci yow mhm. am na ko mas a ñëw sëñ Saliou ne ko Mbàkke ndax la mag ñi amoon mën nañ ko amati mu ne ko waaw waaye ci kaw ñu sàkkoo ko nañ ko sàkkoo woon looloo jafe nag yàlla na ko sëriñ bi defal allahuma amin Mbàkke ñuy gis ci Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke Noreyni nga ci ñi nga xamante ni dina la fa jëlloo kaddu wala yi nga xamante ni ay mbindam la mu koy bind moom dina la koy defloo Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni foo ko féetee ba kóolute googu mu def ko. waaw Cheikh Ahmadou Kara moom ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ay jaam jaamaatam lañ ñun ku ñuy diri doo tàmm fu soog di dal sëriñ bi moo ñu choisir ñun existé wu ñu sëriñ bi moo existé courant bi daw ci ñun moo ñu ko branché kon xam ne ñun bu doon waa Sénégal zaahirement du ñu am courant. Mhm. ñun suñu alimentation lépp ci courant ci ñoom la jóge mm-hmm. loolu la demee ñun Cheikh Modou Kara li moo ko def ci ñun mm-hmm. amuñu mm-hmm. la ñuy manee ci sañam gi la ñuy sañee ci gi la ñuy xamee waaw kon nag moom moo ñu moo ñu bëgg a dimbale di ñu liggéeyloo ndax Sëñ Fallou radiyallahu anhu daan na bind ay lettre ay yoon yoon ku tedd gi naan ko Mbàkke liggéey loo ma kon noonu bu ma amee tawfeexu mu may bindloo ay xasida ak yeneen ak yeneen tey ji taxmis laa ko doon bindal moom laa ko doon yóbbul noonu xasida ak taxmis te dama masa dama ko masa wax ko Mbàkke dama bëggoon nga nga ma yoon wi gën a gaaw ci maye ngërëm mu ni ma mu ni ma mu ni ma yow kay mbind yi nga may bindal nii rek mën na laa may li nga bëgg àdduna ak alaaxira moo tax mu ñuy jara yàq suñuy nelaw yàq suñuy jot lépp rek ngir ngir ngir ngir ngir ngir ndigalu sëriñ bi mhm. loolu mu ñuy waxloo ci biir mbooloo itam xëy na dañuy comme lim ñu def jëriñaat ci liggéey bi mhm. pendant quatre ans yi ma doon responsable moral ba ni ma defee jëriñaat mhm. euh, sunam liggéey ëppee ci diaspora bi itam fédération CRA internationale waaye teewut mu ñu moo waral xam naa communication bi mu ni ci baaxee as tuut mhm. ci diwaan bee geneen a yeneen ñu koy jàllalewaat ci mbokki taalibe yi mhm. waaw loolu ci mbaaxam la ak ndimbalam rek mhm. dañuy faral di toog ay kilifa ñu naan Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni de maanaam ku yar ay njabootam la te loolu it gis nañ ko ci rëkk-rëkk yi nga xamante ni danay am moom ku positif la te ni mu positifee noonu nga positif mu bëri ay ndaw ñu ko topp ñi ñu ngi yàq seen jàng ñii ñu ngi jëfandikoo naka sudul noonu ñii ñu ngi nekk ci leneen ak leneen te ñi xamul bugg ko jiiñ sëriñ bi ak sëriñ bi fi mu teg tànkam. waa xam nga sëriñ bi moom wàccoon naa ñun moom ba mu ñëwee dafa ubbi buntam porte ouverte moom ñëw rek tëju nekk ci biir dafa génn wàcc ci biir terrain bi ndax am nañ mënoo saweeku lab te doo tooy ñu naan marab de la jeunesse waaye ñu dem ba gis ni mag ñee ko gën a soxla ñëpp ndax pour ñëpp la mhm. ndax xéewal moom bu limité woo rek du xéewal xéewal dëgg du limité wu mhm. day saawaan rek moo tax mu doon pour ñëpp Sëriñ Tuubaa tamit doone pour ñëpp ndi a cheikhu ahmadou niamatun awlaha hasil xalaiqa kullaha mawlaha Cheikh Sidiya dani Sëriñ Tuubaa xéewal la goo xam ne sunu borom moo ko xéewale mindaafoon yëpp Cheikh Modou la goo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko xéewale mindaafoon yëpp moo tax nga gis moom mbiram boo ñëwee jotaayam da nga fay fekk chrétien fekk fa tijaan xaadar laayaan ñeseen ñëpp waaw ndax moom wala xad karam naa ba ni aadama lay xool waaw taalibe yi nag wàccoon naa ñoom ndax moom bi mu ñëwee dañu may sëriñu bandi dañu lépp rek ngir jéem leen a euh, ubbil boppam ngir mën leen a defar fóot leen ndax ki xarañ dëgg du ki fekk ki baax nga koy baaxal waaye ki nga xam ne kenn mënut moom da mënut ci moom dara nga jël ko defar ko ba mu mën ak bi kooku wax dëgg yàlla kooku bu naan jàmbaar mooy jàmbaar dëgg-dëgg mm-hmm. kon Cheikh Modou Kara yàlla rek ko mën a fay mm-hmm. ñu ñaan suñu borom gën na ko fay ngeen ngi fay ñu gis moom ci ni muy sàbbaale Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci laa ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi yéen it Mbàkke noonu nga koy defee yow ñu taamu ci la ndax bëri na ci ay zikru yoo xamante ni yow yaa ko fente lu ci mel ni bamba fépp sifaatu saadixin même mbindu ku tedd ki la waaye moom na muy créer ci ku tedd ki ñun dañuy sallu ni yowit it loolu da nga koy créer moom ci jëmmam ba amoon na madda bu neex boo doon madda ñu ngi ñaan buur yàlla xam-xam bala ñu bëgg a def fekk ñu xam ko bu wér a wér balaa ñu koo def mbàkke yebu ñu la waaye est-ce que mun nga ñu koo may fii ci Dakar instant xaw ñu ko riimal madda boobu waaw xanaa ma jéem rek. ndeysaan. ma ma ma bu ko defee maanaam zikrullah boobu nga wax Cheikh Mourou Kara di ci liggéey Serigne Touba. Mhm. ndax xam na ni ndaw mënta ñàkk yëngatu te ci bu yëngatuwut ci yàlla yëngatu ci seytaane mhm. mooy ku demul ci euh, dem ci àll di Firawna mhm. ku demul ci àllarba yi Moussa dem ci dibéeri Firawna moo tax rek Cheikh Mourou Kara wut ndaw wutal ndaw ñu occupation ñuy yëngu ci xaside ak di ci naf nafi ndax xam na ni ñëpp amuñu opportunité pour dem feri ijji te bëri na lu ñu mokkal ci xaside ko benn rek bu gàtt bu doon baax na بسم الله الله من كل كريم أكرم من أمه قد له تكرم أسلم له كل كان إيماني ولازم لسان لي رحمني واجه بي شكر بلا كفراني تكفى حسابهما نيراني واجه بي شكر بلا كفراني تكفى حسابهما نيراني kon nag Dakar instant moom ca kaw ca kanam sunu borom teg ci loxo ba fu ñuy dégg rek euh, seen i nawle rek ñu dégg leen fu ko kawe yooyu di la beralu cant itam ndax ci njaboot gi nga waaye itam yaa ngi jéem a daan sa doole fu ne nga di fa dugg itam ngir tasaare liggéey Cheikh Modou Kara Noreyni mm-hmm. te loolu rek mooy sunum sak boo fa nekkoon ni di doxee neneen doo sañ a ñëw fii sax di ma interview te parce que jot gi mayu ma ko woon waaye xam ne yaa ngi cay góorgóorlu te ci lu baax lu baax la fa bàyyi mm-hmm. moo tax ñu nangu ko mm-hmm. di ko jégalu di ko lebbe beneen it dana gën a yaatu lu ci rek ñu jégal na ko wasalaam na ala may tawal huda di sant waa wil daanu sikoor yi nga xam ne itam tey ñoom ñoo fi ñëw amal fi assemblée générale mhm. wax sant bu baax jox seen wàcc waay coomit di leen euh, ñaanal tawfeexi sëriñ bi allahumma ñu lay ñaanal yow Balla Issa ci oyof tegi hmm. nga yàgg yokk wér sunu borom defal la ngërëmal Cheikh Ahmadou Kara gi rek yaa ma gën a xam man xaw ma man dama jéggi gisa rek gis leen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar kaw ca kanam rek. Ah, gis naa seen caméra bi ni ma timmi xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nii. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre si page seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen tour rek wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant.

information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant na fi instant. Dakar boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy sinap. moom laay sinap Instagram. moom Twitter. Dakar instant. Dakar instant à tout instant.